jugee nañu ci Cheikh Mamadou Mountakha jébbal ko liggéey yi nga xam ne moom la baax ko di liggéey ci màggal gi ba na ca kaw mu yëkkati liggéey yi nga xam ne ay barkeeloo la jëm ci commission bi nga xam ne ñoo yor liggéeyu màggal gi mu yabal ñu ne ak fii ci résidence bi jàkkaarloo sa jëmm ju tedd ji nga xam ne sa diggante ak moom ñu bunu accès xanaa ñu ma jox kàddu gi waaye bu nu agsi woon jottali la kàddu googu rek jottali liggéey boobu tàllal suñu loxo nga ñaanal ma day daal di koy sëkk kon liggéey boobu la ñu yamaloon nga indi ko mbàkk yi di santaat bu baax di la jot ak nuyoo akub siyaar jërëjëf. asalaamaaleykum ñu ngi leen di delloo ak yow delloo ko ci ak cant ak ngërëm bu mag jëmee ko ci Serigne Khadim Lo Gaye di mbokk di xarit di wóor di tari ñu koy sant bu baax ci jëf bu mag bi nga xam ne jëf te yàgg na ko di ko jëm ci ki fi nekk seen tur ba daaw rek yaakaar naa ma téeméer nag jënd nag yitteem ak taxawaayam tax na ne xaw ma yàq ñu mu tuuti moom ak si ñoom yëkkati na fukki at joxe ko ci kuréel yi nga xam ne moo yor liggéey màggal yi ak ma nekk seen kanam kon ñu ngi koy ñu ngi ko cant ak yéen ñu ko seeral ñu ngi ci ak seen ñu ngi sant bu baax di ko ndax xam ne seen tuuti la sax ndax seen tuuti la kon nag yéen ñëpp ànd ak moom suñu turam moo di raw ñu ngi ci itam te lépp lu ñu jëf yaa nga jëf jëf ñu ko ñu ngi ñaan bu baax suñu borom moom leen kattan na ba li ngeen jëf rek boo di ñëw yokk bu baax te woote jëf ji sëriñ bi moom ko bu yàgg bu def ñu ko sant bu baax gërëm gërëm nañ bu baax ndax lépp yitte na bëgg na sëriñ bi ak bëgg liggéey bi rek ñu ngi sant bu baax